dialogue bi niki tey ji sax ñu war càmbar lu ñu mel ngir nag ne mureet mbalaanum député bi di Ousmane Sonko 24 heures chrono ne loo ci mën di dégg jàppal ne SMS bu ni moo dérange dëgg lu jëm ci député ku jégi Aïda Mbodj avocat Ousmane Sonko su mi nab robbam gaynde bawol gi lée ko metti jàpp ne ne ab erreur moo am ci SMS ba ñu envoyé avocat Ousmane Sonko bi ndax lañ ca bind mooy dañoo planifié woon nas seeni pexe ngir faagaagal kii di député bi lañ ca bind leer na nañ des cas on va les traîner dans la boue mais pas de condamnation mu ne day dañoo nasi pexe maanaam deska mi dañ ko toroxal tey jàppal ne duñ ko tëj de waaye dañ ko nag yàqal lool ndax tëj ko sax mën naa taal dëkk bi vox populi ne ñaari député yooyu kay ci commission adak ba bokkatuñ ca Guirassy ak Cheikh Bamba Dièye claqué nañ fëgg nañ bunt mën ne coow ablé wante tey leen def leen ndànk député Abdou Mbow tont na leen ci vox populi premier vice président bu assemblée nationale ne day lenn beesu fi mën a dee ci jant bi amu ci lenn lu bees def leen ndànk ndax nag jàppal ne lu nu mel amoon na ndax ba ñuy dindi mbalaanum kiraayam député Khalifa Ababacar Sall kii di maître Madické Niang defoon na ko te ngañ amu ci lenn lu mu yàq ci bii di lever immunité parlementaire bi kon rek da ngeen yàq seen i wax moom doomu cees bi yamu ci de ne loo ci mën di dégg mooy ñii sax de dañoo mujj di jaxase ndax bu ñu demee bay nangu ñuy diglu Adji Sarr ci commission attaque boobu mooy nag dëgg man xàmmeetuma biléb kujjee tribune yéen kaay ni moo tax de député yi am na lu ñu leen yekk lu mel ne xamee ci mbiru aji Sarr ak Ousmane Sonko bi Adama Faye di gorob président Macky Sall de lam leen yekk weñu cotong din ne député yi ñoom lii seen baaxu maam la tàmm nañ rek di jëm a indi jeex jaaxi jaaxa ak jaxase bu lu mel ni amee moonte dañoo fàtte soxna sii nga xamante ni ñu ngi koy weer fu ci nekk di ko jaaba jonge ak naka jébaane ci mbedd yi les éco yéenekaay ne mbir mi kay day bëgg a critique bu ñu maytul daañu jom jeg ci ay bés bu tàng jëpp ndax xoolal ma li rek Sonko Patricia ak Biram Souleye Diop ñoom ñi seenu ëllëg nag tey ji la aju face à leur destin wante de jàppal ne jax-jax moom ku ko ci séntu rek dangaa demul seeti Antoine Félix Diome moom mi di ministre de l'intérieur ci l'évidence yéenekaay mbirum Sonko moomee ak wàllum ñor na ko dëgg moom day le ministre de l'intérieur fas yéene tere lépp lu jëm ci njaami carbon ci biir dëkk bi maanaam ci détail ak lépp lu wërngal ndakaaru moom day jël na ay matuwaayam moom ministre de l'intérieur yi économiques moom wax jox kàddu ñenn ñi nga xam te ñoo di avocat yi Adji Sarr ñoom day la ñu xam le mooy am nañu ay preuve lépp li ñuy wax nag ci mbedd mi ak ci presse bi jàppale suñu ngañ nekku ci ndax nag du ñu taxaw ci mbedd mi ci place publique di fi solal mbubu robu avocat ñun suñu interlocuteur ka ñuy séqal wax kay du kenn ku bi coronavirus ma bàyyi coowul mbës li wax ci mbas mi di ñu bëgg a yóbbu àllaaxira la libération ne kaay ne juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay bés bi am nañ ko ci ay cas la ñu enregistré week-end bi jàppal ne ñaar fukk ak benn la ci seen bakkan wadd déet réew mi ko di jeene yokkal ndax jàppal ne day Sénégal fi mu nekk ni romb nañu sax baara juróom-ñetti téeméer yi faatu le Sénégal franchit la barre des huit cent morts inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ooy fu ñu jëm ak mbas mi xanaa ñàkku ji lank ne kaay ne ñàkk googee sax ci talaata ji daañu ko door fépp ci biir réewu Sénégal Sénégal tiitaange ak pexe dëndu Europe day tiital na lool boo moytul dana yàq lu jëm ci ñàkk bi wante day imaam yi ak ulama yi ne déet Sénégal def leen ndànk daw leen rek ñàkku ji moo gën ci yéen Abdoulaye Diouf Sarr ne Sénégal moo la gën a xam ne vaccin bi di ñàkk moom rek moo mën a saafara jàngoro ji source a joxaat kaddu ministre de la santé de l'action sociale Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne day talaata dana jël doosom bu njëkk ngir joxe nag signal ba wante de leen rek ko metti mooy nexel ñaar ak yàq gi ñu bëgg a yàq askan bi seen xel ëlëmal leen rumeur yooyee jàpp na ne de buñ moytul dana yàq dàq lu ni wante Abdoulaye Diouf Sarr jug na taxaw weddi ba seet wecci anti lobby yooyu ñu wax ne ay lobi ñoo nekk ci ginnaaw vaccin yi ngir bëgg a yàq seen doxalin loolee Abdoulaye Diouf Sarr leeral na ko nañ wante kay leneen lu ñu leeral ci université Anta Diop bu Ndakaaru l'observateur xëy na ko fësal yëlekaay ab groupe Futurs Médias bi daal di dem ci daara ju kawe ja fësal lu jëm ci nag ay arme yoo xamante ni étudiants yi dey ñoo ko doon jëfandikoo mbàkku na ci nag juróom-benn fukk ak juróom-ñaar fukk ak juróom-benn ci ay agent yu kudd ñoo def liggéey bi étudiants yi ñu bett seen néeg ak seen i lal seen i suufu matelas ay arme ay jaas yi ay paaka lépp loo xalaat ci xeetu defkatu ñaw teef kaaw teef wala lan la doon ñii de ñoom dëgmali woon ca dëkk bu sell ba Touba Mbàkke mujjee wut nag lu neex ci ñoom sol seen yu weex tàll dëgmali jumaa ja bëgg ko wër juróom-ñaari yoon waaw mu xaddimatul xidma ne du co dal ana lu ngeen fiy def ñu ne dañoo bëgg wër jumaa juróom-ñaari yoon def tawaaf tawaaf menn ma ñu xam ca màkkatal mukarama lii de lañ leen tontu fii Serigne tubaa déglewu ko fi waaw tamit dëgg mosu faa amit ci lii Sénégal waxtu ci nekk noppu am gan lii de laa wax ba li ngeen dégg jaa ngeen jëf ñu nag ah mbokk yi ku jàppul sa sàcc rek daf laa waa mi naan électricité générale agsi nañ yow mi bëgg na kaaraange moo xam sa bureau sa kër